boo fekkee da nga amoon euh, genre benn pilier mu lay jàppale si lu bëri mu dem et puis yow ngay ñafee bëggoo ñu gis la si lu ñàkk fayda et euh, bëggoo ñu gis la si lu bon parce que danga am ay doomi jigéen te doomi jigéen dañuy roy ngay ñafe di nekk commerçante di yéeg di wàcc di dem Gàmbi di dem fu nekk di indi di jaay pour euh, pour say doom. pour yow lan moo def succès Salma. y a énormément de Salma dans les maisons donc benn instant boo defee. abstraction rek fàtte ay char rek dund li mais tu vis ça réellement da koy dund en fait tu oublies tout tu te concentres après boo koy wax ni dafa dafa mel lu facile mais c'est pas facile hein tu laisses ta famille quand même c'est pendant les mois tu passes avec des gens dalaat leen euh, ak jàmm ci beneen confidence comme ni ñu leen koy defalee saa su nekk tey nag ñu am invité bu spécial damay wax dafa spécial parce que c'est l'une des meilleures actrices du moment kooku nag euh, ñu ngi koy tuddee Aïcha Ba Aïcha Ba nekkoon fi Miss Sénégal Espagne ay Ba di jouer actuellement film bi nga xam ne moo gën a nekk tendance moo xew ci jamono muy Salma Salma ay Ba ñu ngi lay nuyu. <laughs> maa lay fay Koumba merci beaucoup si dalal bi ngeen ma dalal. Je suis très Merci pour le <laughs> Merci beaucoup également euh, accepter suñu invitation ñu ci kontaan bu baax a baax a baax euh, Salma. laa la war a woowee wala Aïcha Ba. ñaar yëpp yëpp. ñaar ban nga ci préféré. Mm, ñaar yëpp. d' donc dañuy commencer ak Aïcha. balaa ñuy dem ci Salma. d' euh, su ma la waxoon euh, Aïcha. waaw yow yaay kan nooy présenter sa bopp. alors man euh, on m'appelle tout le monde m'appelle Aïcha mais euh, sama tur dëggantaan c'est Aïssatou donc je peux dire que je m'appelle Aïssatou Ba nekk sénégalaise juddoo Sénégal màggee Sénégal sama yaay nekk sénégalaise sama papa nekk euh, sénégalais donc fii laa jànge ba am sama bac et tout donc voilà voilà voilà voilà Aïcha <laughs> très bien euh, Aïcha tey su ma waxee nga ñëwal ma tuuti si sa parcours avant ñuy xam Salma. lan mhm. nga may tontu. ba lu simple lu simple genre juddoo ci euh, benn famille avec euh, beaucoup de frères et sœurs on est six machallah et puis euh, perdu mon papa très tôt donc euh, am yaay bu mat papa mat yaay. jël ñu ñu ñëpp yar ñu et jox ñu éducation bu baax ba tey euh, fu ñu nekk rek dinañ mën a bokk macha allah ak ñëpp donc am ay frères et sœurs yoo xam ne ay euh, référence lañ ci man ma topp seen ginnaaw may caat bu jigéen donc euh, nekk ci famille bu bu bu bu simple comme famille sénégalaise yu bëri. Mm. Mm, di dund di jàng di euh, nekk une fille simple voilà. Mm-hmm. Aïcha nga ni danga nga sa sa sa benn parent muy sa pap waaw boobu ban âge nga amoon. j'avais 12 ans. 12 ans 12 ans 13 mm-hmm. ce que jamono boobu yaa ngi fàttaliku noo ko dundee woon. yomboon na yombul même si sa yaay mu ngi woon foofu matoon na la yaay matoon na la pap et mais est-ce que mën nga ñu wax un peu moment boobu noonu. ndax papa manqué na la woon ci instant boobu. trop sama papa ba léegi il me manque beaucoup euh, sama dëy ba léegi c'est bizarre parce que yàgg na mais euh, il me manque il me manque période ay fête ay période yooyu nga xam ne famille dañuy réunir yooyu laa koy gën a xalaatee et mais euh, voilà ba pare xëy na tamit demam dafa nekk dem bu bu ñu xaarul woon parce que dañ doon dem. fait man Kaffrinoise laa aussi parce que sama ñoom yaay sama yaay waa Kaffrine la donc chaque vacances dañ doon dem Kaffrine di vacances di dem vacances daal. donc euh, bi may bi bi loolu di am genre ñun ñëpp ñu ngi doon dem dugg ci oto bi y a ma maman y a mes frères ñu koy tàggu nii genre ñu ngi dem vacances comme chaque année alors que dañuy dem vacances mais duñ ko fa duñ ñëw bu ñu ñëwee duñ ko fa fekk donc feebar bu gaaw egg si nañ posé wuñ suñu valise yi genre je veux dire deux trois ñu woo ñu ne ñu décédé na donc c'était vraiment. difficile tàggatoo boobu tàggatoo boobu nga xam ne jegewoo ko fekkewoo feebaram t'as pas le temps de nekk ak moom pour te faire à l'idée ne dafay dem genre c'était rapide brusque peut-être que moo tax ba léegi j'arrive pas à faire le deuil mm-hmm. mais euh, maa ngi sant yàlla bu baax bi ma amee yaay bi ma am maa ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. selma la mooy say relation ak sa yaay parce que gis nañ ni ngay waxee ci moom ni ngi mel ni euh, sori na lool lool lool ci yow sama yaay sama xarit la sama yaay sama xarit la sama sama lépp la parce que boo fekkee da nga amoon euh, genre benn euh, pilier mu lay jàppale si lu bëri mu dem et puis yow ngay ñafee bëggoo ñu gis la si lu ñàkk fayda et euh, bëggoo ñu gis la si lu bon parce que da nga am ay doomi jigéen te doomi jigéen dañuy roy ngay ñafe di nekk commerçante di yéeg di wàcc di dem Gambie di dem fu nekk di indi di jaay pour pour say doom mënuma bon parce que yaay bi ma am d'accord donc euh, ñun ñëpp mu yar ñu nag taxawuñu bien vrai que da doon da doon sama papa da ko doon manqué mais bu nekkeek ñun da doon forte des fois ma ne ko mais yow doo sensible tout sax nga jooy mais xam naa da bañ ñu gis ko si moment de faiblesse yooyu dadoon doon jéem a dur quoi wane ne góor mun na yar mais tamit jigéen mun na yar c'est pas parce que seen papa nekku fi rek da ngeen war a sànku daal donc euh, sama yaay sama xarit la. yow yaay sama xarit la sama lépp la dañuy xuloo yi xeex mais <laughs> sama lépp la <laughs> voilà. macha allah eh, fan nga defee sa sa cursus scolaire Salma Aïcha yeggaguñu ci Salma. <laughs> bon man commencé naa fi Dakar école Simon Fall euh, et tout et après euh, am na instant boo xam ne tamit euh, sama jàng arrêté woon na fi Dakar pour ma dem nekk ak fak sama papa dañ ko doon affecté lu bëri ñu nekkoon Kaffrine aussi jànge naa foofu noonu et puis après ñu revenir Dakar nekkaat naa El kii si Sy nekk naa aussi de la Fosse ak Blaise Diagne voilà de la Fosse la amee bac mhm. voilà. après nga am bac après. nga dem université. non demuma université parce que moo je voulais être de l'air. Ah. donc loolu rek laa gisoon. dama pare rek commencé dem dem ci école bi jël euh, kii yëpp info yëpp ñëw taxaw maa ngi fàttaliku jàkkaarloog sama yaay sama yaay ne yow école bi moom ay millions laa fi gis di <laughs> ma ne ko mais c'est ce que je veux après mu ni ma nga mm, doy waar de école bi cher na de hôtesse de l'air après teguñu si daal peut-être un an juste rek si la tukkee nag après euh, dem rejoindre sama grande sœur bu nekkoon Paris voilà. bi ngeen dem Paris c'était pour dem continuer say études wala. Euh, c'était un peu oui pour ça parce que bi ma eggee def naa benn BTS en gestion financière. et après euh, ma bi ma paree loolu après si laa si laa commencé di sob di commencé di daal ay défilé tuuti fii yooyu commencé def ay shooting loolu commencé ma neex mais d'ailleurs avant may dem sax mm. commencé woon naa di ko def fii ak ñoom Ambroise Gomis ak yooyu noonu yëpp mais ma euh, maman n'était pas d'accord à 100 pour cent donc euh, kiiwuma ci bu baax daal suuxu ci woon bu baax bu baax parce que sama yaay dafa bëggoon étude yi daal jël euh, jël. dessus bi dessus bi donc euh, voilà après bi ma demee foofu nag avec ma grande sœur qui m'a poussé naan ma defal defal jaay tu es mince tu defal defal defal donc après euh, j'ai commencé à à y prendre goût et tout voilà. Mm-hmm. donc foofu la goût dem présenté wu nekk Miss représenté nekk Miss Sénégal au niveau d'Espagne lan moo indi nga jóge France dem Espagne. parce que aussi euh, j'ai j'ai ma famille là-bas j'ai des frères et euh, j'ai ma famille là moo mm. tax ma dem Espagne mm. donc bi ma demee foofu Espagne aussi après quelque temps daan na ama may dem di seetaani comme euh, seetaan dem seetaani rek genre ñu sénégalaise bu dem ci événement mi Sénégal Espagne alors tout le temps bu ma demee ñu naan ma doo bokk doo bokk ma ah man daal mu ngi noonu daal ba benn année ñu ne ma bokkal bokkal bokkal bokkal bokkal ma bokk après ma gañaane boobu noonu. nga gañe. quoi. ñu ne la tey Aïcha moom lañ sélectionné moo nekk moo gagné euh, trophée Miss Sénégal Espagne. neexoon na neexoon na parce que amoon euh, après ça amoon amoon naa ci tuuti ay ouverture au niveau de l' Espagne. genre tukki demoon tukki parce que dafa amoon waa euh, Air Maroc ñoo ko sponsorisé woon amoon na ay voyage tuuti dem tukki tuuti euh, et puis amoon na ay invitation yooyu noonu yëpp ci ay télé et tout ça xamoon na am tuuti kii daal yooyu noonu xam nga mhm. waaw. seulement d' accord ñu revenir tuuti Sénégal certes teel nga ñàkk pape. après yaa ngi ak sa yaay est-ce que nekkoon nga xale boo xam ne xawoon na lëj tuuti. déedéet lëjuma woon nag mais euh, <laughs> man dama dama en fait euh, ma xaw a rëy rëyuma kiiwuma euh, lëjuma woon mais dama xaw a rëy ça veut dire dama bëri ay principe dama bëri lu may bañ. donc ñëpp dañu doon wax dama réew ba dof réew réew lañu doon wax tout le temps tout le temps mais du reew c'est que dama doon bañ ku ma yëpp xam nga jàpp kalu sama kalu et bi ma ñàkkee sama papa dama mel ni ku xawoon rebelle tuuti mm-hmm. si j'étais un peu enfermée si bugguma woon wane samay sentiment bu baax kon dama xawoon di di mel ni kuy révolté wu noonu rek ak yooyu noonu mais j'étais jeune aussi et tout ça mais euh, non sonaluma sama yaay benn yoon nekkuma xale ji kii euh, nekkuma woon ku ku tëradi ku ñu doon jàppal bàyyil jëlal fii indi yooyu noonu non non non non j'étais trop casanière mm-hmm. mais ak sama tëju sama tëju bopp xaw a mel ni ku am lu bëri loo xam ne il faut que mu éva évacuer ko pour mu mun a dal j'avais beaucoup de beaucoup de peine beaucoup de douleur ci sama xol. Mm-hmm. ci sama décès papa. d'accord mais peine boobu wàññeeku na. waaw euh, lan moo ko wàññi. ah je pense que expérience de la vie parce que da ngay màgg àdduna bi di la jàngal. te nga gëm yàlla aussi nga xam ne yàlla moo la ko joxoon yàlla yóbbu na ko munoo jooy munoo métitlu ba mu ñëwaat li ngay def rek def de sorte que fu mu nekk mu fier ci yow et puis nga aller de l'avant et puis ki nga xam ne moo fi des muy sa waajur bu jigéen nga def tout pour ko fier parce que ki dem dem na ba pare. Mm-hmm. donc donc donc loolu la et puis euh, et puis voilà nga màgg nga dem nga génn tamit Sénégal dem gis ne euh, gis leneen dundu leneen. muy métti yenn saa yi tamit dafay métti faut le dire ah, ñëpp xam nañ Europe nu mel donc voilà ngay ngay nga nga nga ngay dund dund yooyu ngay dund tamit moo lay forger nga dem benn instant tamit da ngay bës sa xol day métti mais da nga naan dama gëm yàlla ndaxte y a pas chose quand même da ngay da ngay da ngay aller de l'avant rek. Mhm. voilà. d'accord Aïcha ah, ah, Aïcha xam naa il faut ma génn ci vie Aïcha. dem si Salma parce que sinon dinañu indil Salma te yeggaguñu si Salma ndax yaa ngi yaa ngi jooy xam nañ ne Salma moom jooy rek lay def donc euh, ok Aïcha. Ouais. après nga nekk Miss uh, Espagne. Mhm. Uh, Miss Sénégal. Espagne, Espagne. léegi lan moo la dugal ci métier actrice. Ah, man dama nekk ci benn agence. bu euh, bu ma nekk jusqu'à présent depuis des années moom mooy yor sama lépp en tant que si si temps yooyu noonu en tant que mannequin la woon ak damay def tamit beaucoup de publicité je pense que je j'ai fait beaucoup plus de publicité que métier mannequinat j'ai fait beaucoup beaucoup beaucoup de de de de de de, campagne publicitaire mm. léegi nag am na un jour boo xam ne ak sama agent euh, sama agent dafa xam benn acteur bu siiw bu tudd Pedro Ruiz bu siiw en Espagne bu ko xam ne kenn du ko présenté ti mag la voilà ku def ay théâtre def ciné ba def ay def ay émission télé et tout ñoom ñaar dañoo xamante donc bu doon préparé benn pièce théâtre am nag après ni ko dama soxla benn actrice mais par contre soxla woon noir mm. dafa soxla woon genre dafa waxoon dafa soxla actrice rek mais c'est sûr que man bi ma demee ni ma xoolee xam naa xaar woon gis noir danoon xaar gis benn espagnol mu wax euh, li mu bëgg wax ci politique ci immigration ci temps wu yi ak yooyu parce dafay def genre théâtre critique lay def. Hmm. xam nga euh, donc donc voilà donc sama sama kii bi sama agent bi ne ko dinaa la yónnee kenn donc bi ma ñëwee mu amoon casting bu gudd yooyu noonu. ma ñëw gis ma fa kenn des fois sax nga dem casting mais di nga gis sax ñu xaw a métissé ak yooyu donc hmm. tu te dis que ne waaw ñëpp lañuy ñuy jël. mais bi ma demee dama fi gis ay blonde gis fa ñu kii ma ñëw ma ne ah fii moom est-ce que kii juumul après ma woo ko ne ko Laura est-ce que fi nga ma yónni mu ne ma si si si si. après ñu jox ma kii bi texte bi ne ma naa ko préparé ma lire préparé ko sama tur jot ma dugg bi ma duggee après mu ne ma pardon ma ne ko man la Aïcha et tout agence arrêté management moom ma fi yónnee yow après mu ne une minute je pense que dafa woo sama agent. oui ko mm, waaw kii ko rek euh, defal ko casting bi léegi ma def casting bi rek. après mu woo ma si beneen pièce boo xam ne y avait moins de personnes ay 5 4 yooyu noonu. Mm. après mu ne ma suba da ngay ñëwaat ma ñëwaat ak le lendemain ñu maa ngi ñu gisante ci benn hôtel euh, ci hall bi noonu ñu toog man ak trois filles fii tamit ma ne ah man daal fii dama kii daf may indi ba fii rek tas sama yaakaar et après ñu ñëwaat encore foofu noonu ma defaat encore affaire bi vu que man je peux paraître timide su may wax ak yow nii mais sur scène. aw ma foofu benn je suis ci sama euh, je peux dire que dama nekk si sama comment je peux dire ça sama. si sama environnement si sama je suis bien je me sens bien quand je suis sur scène donc euh, du ma am foofu stress donc dama j'étais tellement bien que j'ai fait ça ni mu waree. Mm. donc le gars il a aimé après mu ne ma mu ne euh, voilà on va faire une tournée. après ma ne ko mais man awma expérience man en tant que ma fi indi en tant que ku doon def ay pub ak ku doon def mannequinat ay photo shooting mais awma benn expérience théâtre et là da nga mën a la yóbbu man dana def toutes les villes de l'Espagne mu ne ma dina dinañ def ay dina am ku lay kii ak yooyu noonu yëpp en plus tu avec moi moom c'est pas n'importe qui et je sais ne avec moom dinaa jàng lu bëri. Mm. donc loolu duré pendant huit mois ñu dem Madrid dem Bilbao dem Valladolid dem fu nekk ci Espagne di tourner mais man bi ma paree tournage boobu li ma def mooy vu que tourné naa loolu yëpp ba pare et que j'ai senti il y avait quelque chose boo xam ne mu ngi ma doon attiré ci liggéey bii nii. et lii ni ma ko doon gis moom tam ni mu doon defee bu yéegee sur scène. jare avait quelque chose am na lu juddu woon ci man ma ne lii il faut que ma xam naka la ak nan la. Mm. donc juste après ça dama dem jàngi. mais sama sama carrière en tant qu'actrice dafa commencer bien avant sama formation parce que on m'a donné cette chance. oui ma nekkoon nag koo xam ne tamit dafa yàgg ci millier bi mu jàpp coach ma coach ma ba ma mën a gérer tourna tournée boobu ñu defoon yépp ci ville Espagne yépp. Mm. mais après je me suis dit écoute lii mënul jëm mm, kanam jàng baax na ci il faut avoir benn base. Donc je suis allée m'inscrire dans deux écoles, dans deux, deux, différentes écoles, une école de théâtre et une école de ciné. Donc, bu ma xëyee dem ci bii su ma wàccee dem gont ci boobu di jàng pendant des années ba ba sentir ne maintenant maintenant euh, je peux dire que je suis une actrice pas benn apprenti qui je vais toujours apprendre jàng du wees mais après am na fooy looy def am base boo xam ne boo taxawee di nga mën a wax ça je l'accepte ça je l'accepte pas mais boo bokkee ci rumbul maa bi di dem rek. Mhm. xam nga lu ñëw rek lay yóbbu. mais mais mais ban instant nga sentir ne tu étais prête tu tu t'es sentie vraiment actrice c'était quand exactement. Euh, bi ma paree samay formation ba ñu commencé di def ay di def may def ay pièces théâtrales. en Espagne di commencé di yëg di gis nit ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi li may def di apprécier li may def et que man tamit parce que pour que nit ki aimé li ngay li ngay def mm. yow il faut que yow d'abord nga nga gëm ne li ngay def neex na donc man commencé woon naa di enjoy li may def commencé woon naa di sentir ne à ah, j'ai ma place ici parce que dama ko liggéey aussi xam naa ne jox nañ ma chance mm. mais la chance day ñëw de temps en temps mais boo amee une bonne base xam fu baax fan foo tëyee. Mm-hmm. après di gën a mën a yàgg ci milieu bi parce que peut-être que rumboulement mun na ñëw chance ñëw rek nga dugg mais après tem nga gaaw réer ci biir parce que xamoo fooy teg sa tànk et je pense que ne ma la meilleure des décisions mooy bi ma paree juste loolu. Mm-hmm. am na ñu mën a wax non mais ku liggéey ak Pedro Ruiz jarul ngay def dara ma ne non il faut ma dem jàngi. te bi ma egsee ci école bi fekk fa nit ñi li ma defoon ci dama doon kii noonu rek di faqastalu di dem rek mais que waroon naa dem jàng mm-hmm. bien avant mm-hmm. et que je remercie samay prof ñi ma jàppale pendant des années parce que c'était pas c'était pas facile mm-hmm. parce que si ñaari école yëpp j'étais la seule noire si ñaari école yëpp école yëpp donc euh, des fois ñu juger lépp juste parce que dañ naan euh, yow yow réellement da nga def théâtre fii en Espagne yow tu penses vraiment que tu as ta place et oui oui parce que ñi ma doon jàngaloo ñoom ñëpp ba am ak ñoom diplôme Euh, peut-être que gëmuñu woon ne dinaa après dinaa mën a commencer di liggéey en Espagne en tant qu'actrice parce que vu ma couleur de peau et mais ñu ci bari ñëw nañ di ma seetaan si bi ñu paree jàng ñu ñëpp ñoo jàngandoo pendant des années. ñëw nañ di ma seetaan ci alors que ñoom commencé guñu woon sax di liggéey man maa ngi doon liggéey. yaa ngi doon liggéey waaw. d'accord da ci ay films foofu Espagne. waaw def naa ay court métrage. def naa mais plus de de théâtre sur scène. oui. au fait aujourd'hui si on me lan moo la gën a neex mën naa wax ne ñaar yëpp neex na ma jouer en si ay séries jouer si ay films mais man dem théâtre sur scène aussi dafa nekk loo xam ne Euh, loolu noonu ngay joxante genre ak le public que tu es là que y a pas de coupé nii que c'est tout est tu improvises fii dara bu bu ñëwul da ngay def. genre que ak boo amee benn trou ba léegi léegi léegi tu cherches quelque chose tu peux pas laisser ton public ñuy xool ndax am na lu xew ça sa stress la gi nga yëg sur scène di leen gis nga wax dara ñu reetaan nga sentir reetaan bi nga wax dara ñu xaw a tey nga xam ne il faut ma am feneen fu ma jaar ça j'ai aimé vraiment ça me manque mm-hmm. voilà. d'accord ñu xëy rek découvrir ko. Mm. Sénégal. oui même si am na jaar-jaar def na def na def na formation def na ay film au niveau Espagne affaire yooyu noonu. Mm-hmm. donc nga ñëw Sénégal da nga ñëw Sénégal réalisateur bi gis la jël na ci film bi walla nu mu demee noonu. Euh, euh, non demeewul noonu mais euh, l'acteur principal Julo. Mm. moom moo booleeg moom. moo moo ko ne moo ko ne euh, Aïcha c'est mon mag Julo dañoo xamante depuis des années. depuis des depuis de très longues années. moom moo joxe sama téléphone après le réal woo ma ñu toog ñu waxtaan et quand on s'est vu. si première fois bi je pense que courant bi dafa passé et ma gis tamit euh, mu wax ma ma gis jom fulla ak fayda parce que nit mun na la ñu wax la ay wax rek mais danga naan waaw mais li mu doon wax ma gis ne projet bi daf ko daf ko tenir à cœur que lim si lim nar a dugg si lim nar a sóobu du lu ñàkk fayda lu am fulla ak fayda la man tamit neex naa ko man tamit li may wax si instant boobu neex na ma et yàlla def foofu la lépp commencé foofu la lépp démarré parce que nit mun na ko booleeg man ñu gisante te courant bi du passé mais yàlla damay sant yàlla bi ñu gisante lépp dafa passé ba tey suñu suñu ñuy liggéey maak moom voilà. Mm-hmm. d'accord seulement ñu tourné ko mu am succès bu euh, bu bu mag a mag a mag nan ngay dundee loolu. damay wax alhamdulilah parce que bu ñuy commencé projet bi kenn du la signal ne la ça réussir. da ngay gëm rek dugg ci di ñaan yàlla yàlla. lépp loo ci def yàlla fekk la ci yàlla jàppale la si et damay ñaan yàlla damay sant yàlla du moins que série bi Sénégal jël nañ ko bëggal ko seen bopp dugal ko seen biir xol et puis mu jaral leen ñuy dund li Salma dund ñuy mer chaque samedi da ngay gis dañuy mer dañuy jooy ak ñun loolu sant yàlla la mm-hmm. avant tout sant yàlla la parce que mun nga nit liggéey na bay bëgg dee dugal kenn bëggul li nga def mm-hmm. donc bu ñu amee équipe bu bu bu je dire bu ñu amee un réal boo xam ne dafa ñëw jël ñu boole ñu def ñu commune une famille euh, joxe le meilleur de lui-même di xaar nag le meilleur de nous ah yàlla def public bi ñëw encore boole ci jàpp ci dañuy sant yàlla di ñaan yàlla yàlla na jëm kanam et lépp lu ñu def sax ñun Invictus Media Group yàlla na ko ñëpp di ko bëgg di ko apprécier di ko boole seen affaire. <laughs> amiin incha allah euh, euh, Salma liggéey yomb na yomb na surtout nga nekk ak ay nit say collaborateurs affaire yooyu nag est-ce que ça arrive parfois muy am ay ñagas ñagas. wala ngeen di tourner mu am ay problèmes affaire yooyu noonu. waaw du ñàkk parce que bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. faut pas on va pas se voiler la face même ki nga bokkal deret sax des fois ngeen am ay ñagas-ñagas mais euh, tout se parle mun ngeen kii nii après su ngeen paree bu faites des câlins fu ngeen waxtaan. des fois des du ñàkk. mais man gis naa ne si suñu production il y a beaucoup de respect parce que j'ai l'habitude de dire loolu moom ku ma xam xam na ne dama ko yàgg wax. Euh, ki ñu njiite ci biir production bi ki nga xam ne moom moom ci ay waawam la ñuy dox moom ci boppam moom moo wàccee boppam deful boppam patron deful boppam chef ba ñun ñuy sentir suñu bopp ay surga. Mm. dafa jël def ñu ñëpp ñu nekk une famille lu la métti ñëwal nga wax ma ñu trouver terrain d'entente ñu trouver ñu waxtaan moom ci boppam moom moo def de de sorte que lépp dafa yomb donc après en tant qu'acteur euh, sincèrement man. ak acteurs yi may joué vraiment yàlla rek moo tax may wax awma ci ak kenn problème à part julo des fois ñu kiiwante noonu <laughs> waaye xam nga rek muy noonu des fois ñu kiiwante noonu xulo Aïcha lan moo lan pour yow lan moo def succès Salma pour yow pour man di def succès mooy le travail qui est derrière sincèrement euh, kenn du nëbb jant bi ak benn baaraam mm. liggéey bi ñu nekk di def di sonn depuis des mois ñun ñu nekk ci biir ñu xam nañ lan lañ dund donc tey bu ñu amee lii benn instant dañ ko mérité parce que je parle en connaissance de cause xam naa li may wax donc fii y a pas de de d'hasard ou de chance on a travaillé dur et je parle pour toute l'équipe ki ci gën a ndaw ki nekk ci suuf ba ki nekk ci gën a mag ku nekk yi ngi def sa liggéey nu mu waree des fois nag mu am ay tëq-tëq mais amul mais ñëpp ngi liggéey seen liggéey donc je pense que ce travail là colossal moom moo feeñ si écran bi ba nit ñi gis ne vraiment Salma a fait le boom quoi. mais Salma loolu ñu ngi gis yaa ngi koy wax ak émotion lu tax loolu. parce que dama nekk ci biir xam lu lu bëri. Hmm. comme lu ñu xamul ñun li tax tey man laaj la question bi Salma ngi ému ni ba sa bët xonk ci. lan moo waral lool. non du dara juste que ay yow tamit bu ma jooyloo fii non tu laisses ta famille quand même c'est pendant des mois tu passes avec des gens confidence la nii la à chaque fois invité yi dañuy ému parce que dañ leen di question yoo xam ne dafay dugg ci ñoom carrément mais bon c'est pas négatif. Ouais. non que euh, je dire que ñoom on voit beaucoup plus suñu équipe de tournage que nos propres familles xam na ñu ku si nekk bu may déglu dina xam lan laay wax. Mhm. je suis mariée j'ai mon fils il n'a pas encore deux ans. Mhm. keneen ak keneen am na ay doom yu ndaw peut-être que amul sax un an donc quand tu laisses ta famille nga gëm li ngay def caaxaanoo ko caaxaane woo ko foowee woo ko defoo ci dara lu njublan duggoo ci dara lu neexul yàlla ah on mérite tout ça Invictus Media Group dafa ñafe Salma parce que nag c'est leur premier projet faut le dire defuñu fi un an defuñu fi deux ans defuñu sept ans ñu ngi soog a ñëw macha allah yàlla nañ fi àgg mais dañoo ñëw. liggéey fii amul leneen lu dul liggéey liggéey rek lañ def job liggéey y' a pas de secret amul benn coup de magique fii dañoo nekk di liggéey ay jeunes nag di liggéey gëm li ñuy def moo tax je suis émue parce que nekk ni ñu mel noonu dafa neex ci xol parce que ça prouve que ne man li ma choisir di def ak fi ma dugg rëccuwuma ko moo tax parce que je passe beaucoup plus de temps ak ñoom gis nañ sama mère gis nañ sama kontaan gis nañ suma voilà c'est ma famille c'est ma famille ak seen yu yu juste ak seen yu mag ak seen yu ndaw ak yëpp lu ñu jaxase rek c'est ma famille voilà donc je suis émue man moom damaa mën a jooy waaw muy noonu. nga mën a jooy trop laa war a bàyyi benn instant. seulement mën nga jooy seulement jooy yi ngay jooy ci film bi Aïcha jooy yi ngay jooy ci film bi nu mu demee noonu. <laughs> da ngay jooy dëggantaan wala nan la. léegi damay jooy nii dañ maa defar rongañ wala. non non nii moom joxe joon jooyee. dëgg la waaw léegi nag comment on peut traiter sax xaw naa cee ému. des sujets sensibles. Oui. et ne pas pleurer. Je vis. Je ne joue pas, je vis. Je suis fière de Montréal qui me pousse à bout. Qui ramène, même si lui il croit que je peux le faire, mais le fait mu ñëw jox ma benn phrase rek di ma pousser à bout que ba ma ñëw ba ma génnee émotion boobu ba éclate des damay jouer benn séquence pare tëdd nit ñi jooy man dawal naa sama oto jógee tournage di dawal di jooy ba ni may eggee parce que il faut que je me vide aussi pour su ma eggee je Salma du dugg sama kër. Mm. man Salma dugg sama kër parce que Salma bu duggee sama kër rek sama kër dina triste di. je veux pas ça mais euh, jooy yi kenn fabriqué wu ko kenn def ko daa c'est juste que en ce moment même bu ñuy tourner séquence yu métti yooyu noonu je vis ça. et je me mets à la place de cette personne qui est en de vivre ça. Parce a beaucoup de Salma dans les maisons. y' a énormément de salma dans les maisons donc benn instant boo defee abstraction rek fàtte ay char rek dund li mais tu vis ça réellement da koy dund en fait tu tout tu te concentres après boo koy wax ni dafa dafa mel lu facile mais c'est pas facile ah concentration concentration la laaj gëm ne li may ñëw di def nii pour que mu egg ci saalu nit ki ba nit ki gëm ko du coup de magique de. boo ko mm. liggéeyul doo ko def. loo mm. fi jàngul doo ko tari. dëgg la. Eh, eh, nangul naa la loolu loolu moom am na eh, seulement nan ngay réussir transition bi tey nee nga parfois nga nga jouer sax affaire bi topp la ba sa biir oto ah. waaw léegi nooy réussir ay génn ci poowu seulement booy dugg sa kër. man sama sama technique euh, c'est la respiration c'est la respiration maa ngi fàttaliku sama professe sama professeur bu ma génn bu ma bu ma dundee woon ba bu ñu doon def benn exercice à l'école mu nekk benn émotion bu bu bu forte comme tristesse bu ma jooyee ba sax dafay ñëw rek ne yasta yasta yasta sal saldeya yi sor sor de là sor de là génnal génnal génnal ne la nii am nga donc euh, man loolu tamit des fois dama koy appli dama koy appliquer sama bopp bu ma waxee sama bopp ne yasta jeex na c'est fini je reviens sur terre et je respire jël benn coup der euh, respirer et je laisse Salma partir pour aujourd'hui il elle a fait son job donc simiwaat yére Salman Nang sol yére Aïcha Ba Diallo dugg sama biir kër le lendemain bu amaatee bu ma yeewoo quand je me brosse les dents maa ngi ci rolu maa ngi ci Salma avant de sortir maa ngi ci Salma lépp lu may def maa ngi ci Salma même bu may naan sama kafe dama naan Salma nan la nan la waree naanee café parce que là je me prépare pour que su ma eggee plateau du métti waa fekk pare naa maa ngi xool Salman bu doon dawal nan lay dawalee bu eggoon nan lay defee maa ngi jéem a di dugg nànk nànk nànk nànk nànk nànk bu jëy di waxee euh, on va tourner dans dans trente quinze minutes ma dem làqutu si benn ruq commencé di def samay respiration di préparer wu comme ça su ma ñëwee jooy boobu ngeen di gis mu yomb fekk nag am naa lu ma préparé ci ginnaaw. donc Salman mais mais est-ce que musul Salman musul dugg këram réellement est-ce que musul arrivé nga dugg sa kër ak si po Salman musul arrivé. benn yoon. benn yoon euh, <laughs> benn yoon en deux fois mais bu bu du wax bu triste bi bu neex bi laay wax. parce dafa amoon bu triste ak bu neex. <laughs> waaw waaw wax ñu bu neex mooy bi ma sama papa génnee. bi ma sama papa génnee ak yooyu noonu père Moustapha ak sama ñëw bokk tur. sam sama bi ma jur Moustapha la tuddoon. Hmm. donc père Moustapha ba pare dafa am ressemblance ak sama bi ma jur. ba pare Père Moussa le premier Moustapha dama jum Père Moustapha le premier jour bi mu ma gis euh, mosu ñoo xamante mosu gisante si benn plateau genre premier jour bi ñu war a tourné ma ak moom dafa ñëw rek teg ma loxo nii rek ouf c'était euh, lu ma mënul nettali sama àdduna ba pare comme mosul gis ma tourné xamuma mu ñëw rek gis ma rek ne ma tu as ta place dans ce métier ci koo xam ne pour moi chance la mm-hmm. tey mën a tourné ak ñoom tamit ku ko xam sama yaay daf may wax naa ma kii de muy joué ba ma koy seetaan yooyu juddoogu donc tey ma toog bay joué ak moom mu ñëw teg ma loxo gis si man dara euh, kenn mësumaa génnee mais le fait moom sama pap boobu noonu loolu noonu mu génnee ma man xaw ma lu tax j'ai ma ànd ak loolu ñibbi di jooy loolu tout la journée tout la nuit dama ko jooy di ko jooy di ko jooy génnee boobu noonu dama ko jooy surtout quand mon petit frère Sirema a dit cette euh, fameuse phrase de def ko nànk ah def ko nànk boobu def ko nànk boobu. dala topp <laughs> sa biir bu neex bi nag bu xaw fani bi mooy genre damay ñëw wax sama jëkkër ni ko man du ma Salma de te yow doo Rachid ñamaleel sa bopp <laughs> toujours mu ne ma may Salma si foofu la yem man du ma Rachid ma ne quoi dama lay waxal rek dama lay waxal parce que yii Rachid di ma def nii yow bu ma ko def mu ne ma mais man je ne sais pas je suis bon voilà donc voilà. Euh, Salma sa jëkkër daf lay jàppale bu baax ci li nga nekk bu baax. Mhm. bu baax bien avant lii yëpp ku ma jàppale la ci lépp. ci euh, million bi la la fekk noo leen xamante. j'ai connu mon mari il y a à ans kon xam nga yàgg na. yàgg na waaw c'est mon ami c'est mon euh, euh, sama wéeruwaay la gis nga àdduna bi ñu nekk nii. boo amul foo wéeru dangay neex a bëmax am un homme comme ça dans vie sant yàlla la donc euh, juste pour bañ a dugg bu baax mm-hmm. euh, c'est une personne bu ma jàppale que ma nekk actrice que ma nekk mannequin que ma nekk leneen ak leneen ak leneen toujours si lu ma mënti nekk te yàlla nangu ko dina ma si fekk dina ma si jàppale daf ma yombalal lépp lépp la ma yombalal jàllu jéeri yàlla na yàlla guddal fanam. d'accord euh, euh, Salma say perspectives euh, côté professionnel fan nañu war a xaar Salma ay ah, Ba Diallo ah. parce que après Salma yeneen day ñëw. incha allah donc Aïcha Ba tey la mooy ay perspectives am suba. Euh, d'abord terminer ak euh, ak Salma ah terminé sax du ma neex parce que man Salma a ko nam trop. jooy <laughs> yi ngay nam. yooyu ak yëpp naa nam mais bon. Mm. Euh, bëgg naa bëgg naa amaat yeneen projet comme voilà en tant mm. qu'artiste continuer di di wane sama sama art voilà di di di liggéey di bëggal waa Sénégal et pourquoi pas génn en dehors du Sénégal viser feneen liggéey feneen et puis voilà en tout cas man dinaa def sama kéemtulaay kàttan gën a liggéey. gën a formé wu euh, parce que pour man la formation ne s'arrête pas là. gën a mm. yokk sama sama sama ay lépp pour que buñ ma fekkee ak projet boo xam ne vraiment euh, antu ak samay principe ma mën a prête pour def ko voilà di ñaan ngeen ñaanal ma rek yeneen ak yeneen ñëw. Mm. waaw seulement ñun nag fii Sénégal dañuy poser ay question quoi bon yow yaay xool bu la neexee nga tontu bu la neexee doo ci tontu. Mm-hmm. mais euh, tey su ma la waxoon quelle la plus grande déception que tu as vécue. si sa carrière wala je sais pas sa carrière loo may tontu. déception. non déception est-ce que est-ce que décep que mun nañu su ma dis ne nit buy dund moom su terre. doo mënoo dund ba dee te doo am déception. déception moom ak life ñoo ànd. waaw da xëy di daanu jub waaw. mais je je me dis que ne des fois mun na métti ci tàng tàngaay bi déception bi mun na métti ba nga fàtte lépp mais après quand tu te dis que ne peut que c'était pas destiné du du nekkul woon pour yow et puis tu te ne non c'est juste reculer pour mieux sauter je pense que oui am naa ay déception comme ñun ñëpp am nañu ay déception mais rëyu rëy boo xam ne bon euh, yàqal na ma sama àddina wala tax na ma taxaw euh, du ma xam fan laa jëm juma dikk dis que na dafa gënu woon ci man et puis voilà je pense que ne mu ngi noonu daal. d'accord léegi jusqu'à aujourd'hui lan nga considérer ni mooy euh, ta plus belle réalisation. mon fils mon fils loolu moo rôle bu dàq ci sama rôle yépp yi ma joué sama àdduna et yi ma nar a joué tamit moo fils voilà c'est ma plus belle réalisation. seulement da bëgg xaalis wala bëgg xaalis. bëgg xaalis kay. bëgg xaalis à point. bëgg xaalis parce que bëgg naa mm, nekk ci jàmm ak salaam genre euh, samay ñi nekk sama wet samay entourage samay nit samay mbokk tamit nekk ci jàmm mais pas bëgg xaalis boo xam da ngay dem def naka su dul noonu genre bëgg naa ñafe liggéey mais li may liggéey tamit mu am lu mu ma jural quoi parce que tamit ku nekk fenn tamit di sonn di yenn di guddee di naaj xam nga bëgg na mi am dara mm-hmm. et bëgg xaalis bi juste mooy rek être tranquille tranquille nekk si jàmm ak salaam faj say soxla faj say soxla keneen ak keneen ku ci nga faj ko xam nga di dem de temps en temps di mën a dem ay vacances yooyu noonu ak di dem di ñëw xam nga <laughs> mel da nga bëgg lu ah, ah, ah, boo ci nekk da ngay dund yooyu noonu d'accord mais seulement est-ce que est que euh, comme li nga bëgg nii yëpp est-ce ngay def yaa ngi ciy gis sa bopp est-ce que yaa ngi ci sentir vraiment que ne mu ngi satisfaire ses besoins est-ce que affaire bi am na xaalis est que réal bi mu ngi leen di fay normal ko ah bu yokkee de ma jël. su yokkee nga jël de ah. <laughs> non non sincèrement nag sincèrement bu ma waxee rek te yàlla tax proposé nañ ma fi lu nekk yàlla rek yàlla dëgg nag dafa neex yàlla. Hmm. parce que avant euh, Invictus def naa fi Manjaak te avant Invictus ah, gis naa fi yeneen proposition dëgg moo neex yàlla mais sincèrement respecté nañ acteurs yi. acteur bu bu liggéey Invictus moom wax la contraire dangay wax lu la neex sant yàlla bu baax mun na yokk parce que lépp loo gis si àdduna mun na yokk mais bés bu seen affaire baaxee suñu affaire day gën a baax man xam naa loolu. parce que baax na nii déjà daal. baax na sant yàlla non on va pas se plaindre sant yàlla sant yàlla. d'accord Salma lan ngay tàggatoo ak euh, internet yi ñuy seetaan. Ah, di leen wax euh, jërëjëf jërëjëf ci. ci bëgg ngeen ñu bëgg ñu ñëpp waa Invictus jërëjëf si bëgg bi ngeen ma bëgg ak bu ñu tasante ci mbedd yi bu ñu gisantee nit ñi nit ñi ni ñuy ni ñuy def macha allah daal merci beaucoup di leen nag wax euh, décembre lañ nekk et qui décembre di euh, Noël joyeux Noël bonne heureuse année yal nañu yàlla may ñu fekkee 2023 bi ak jàmm ak salaam. yàlla mottali lépp lu ñu sumboon ci 2022 bi yàlla na ko yàlla eggali te mu jig ñu te ñu tal ko te fekkee ko ci 2023 bi et puis je vais terminer j'ai fait euh, benn émission démb et je vais le redire parce que sama cause la en tant que femme mooy na góor yi muñal jigéen ñi. Mm-hmm. surtout. waaw loolu moom dama lay rejoindre waaw waaw na góor yi muñal mm-hmm. jigéen ñi et puis euh, beaucoup plus de tolérance. oui d'accord besoin de sa waaw. jigéen ñi nañ am leen di muñal ah marché bi métti na yaa bon xaara mu am lu ma wax balaa may génn yaa 4 cinq jours dama demoon marché parce que damay nduggi ba léegi. Hmm. dem marché métti lépp cher. mais boo demul doo ko xam gond góor yi nañ gën a muñal jigéen ñi parce que li nekk ci dëkk bi dëkk bi cher dëkk bi métti na ah bëgg añ bëgg reer bëgg ndékki ba pare wax ju neex doo ko am na wax yi di neex ci biir kër yi nañu nekk ay nit ñu duu ci biir kër yi. nit ñi jigéen ñi ñu dalal leen dalal seen fit yi dalal seen xol yi bàyyi salma yi ci kër gi salma yi libéré les salma xam nga salma yi xàppi bon loolu mooy sama message en 2023 je veux voir des femmes heureuses pas de féminicide de rien de de de de de triste que jigéen yi nekk ci côté góor yi pas derrière. Mm-hmm. seen côté. voilà ñuy avancer ndoo di xàccandoo di dóorandoo loolu mooy sama message de fin et je vous remercie maa ngi leen di sant di leen gërëm et à très bientôt incha alors man aussi damay adhérer ci cause Salma euh, moins de Salma dans les maisons ñël leen jigéen ñi comme ni mu ko demandé wi ñu ni tamit jigéen ñu ñu góor góorlu ci côté boobu aussi. Mm. donc euh, ñu ngi leen di joxaat dig daje ci beneen numéro confidence toujours noonu lay demee ak beneen personnalité du yam rek nag ci acteur walla euh, woykat politiciens yi dinañ fi ñëw journalistes yi sax dinañ fi jaar. keneen ak keneen dina ñëw confidence la wax merci beaucoup merci